dikkati naa yaa ngi dem sa dem neexuma way woowee sàll ngari lam tooro burge di dégg gu ci réew mi bés bi la jour nan man en tout cas daal dinay tàggoo moom président Macky Sall defub discours boo xam ni xel nangu na ko tribune yéen a kaay nan kon en tout mi ngi fas yéen a jóge ci loxo nara tàbbi ci loxo yoo xam ne dara ca leeragul yéen a kaay des médias bi nan kon en ñu Sall ma xamal la ni sunu dara ci leeragul fi mu ne yéen a kaay des médias nan kon dañu ne loxo bu bàyyi loxo ngi taxaw fi ne nag loxo yi nga xam ne taxaw na ngir yootu Sénégal conseil constitutionnel loxo bu talalu mën la bankal du yow luñ teg mu teggi ne dem leen bari na ñoo xam ni nee na leen dem leen toog dem leen fawi yéeni kaayib day média bi naan man tey mbir yi day wéy waaye ci bëccëg bu njëkk bi daar daar fukki nit ak juróom mani la daal dina ñuy tàbbal géej seenu candidature ñetti kese képp dong la ñu daal di valider maître El Hadj Diouf mu war a nag rattrapé waaye du jafe Ousmane Sonko daal di nekk ci liste d'attente bi war a xaar aljuma yéeni kaayib day média bi naan man laataa loolu kaay ma xamal la ni El Hadj Ibrahima moom ba mbir yi tàmbalee la ni conseil bokkatuma génne leen ma turbine naan maan Mohamed El Habib Tunkara rëkkale Rose Wardini rëkkale Cheikh Tidiane Gadio rëkkale Mohamed Ben Omar Sy Diop rëkkale Papa Makodou Diouf rëkkale Mary Teuw Niane rëkkale Abdoulaye Sylla rëkkale Samba Ndiaye rëkkale Aminata Assom Diatta rëkkale léefa yéene kaay naan maan keroog ca conseil daanaka àdduna gu tukki la woon Abdoulaye Diop mi nga xam ne nee nañ ko muttilil te ñëw Sud Quotidien naan maan boobu président Macky Sall nga na ba yeggal waxoo ci loolee 24 heures yéeni maan Sall ma nga naan teg naa leen ci yoonu émergence fàtte nag wax moom président Macky Sall ci bilan immatériel bi le quotidien le quotidien naan kon en tout xam ne def na ko ci fukki at ak ñaar yi président Macky Sall xamal na ko sénégalais yi laas yéen kaay naan teg ci président moom président Macky Sall ma ngay sédd bi nga ni moo war a falu bilang boo xam ne neex na rëy na l'enquête ko dajee naan kon discours yi bari na président Macky Sall ma ngay naqar lu fippu sañ wax gi waaye tam manipulation gi nga xam ne am na ci réewum Sénégal ñooñu Ousmane Sonko demal rek ak ak yelleefug doomu aadama caxat caxatee nga ko ba mu neex ci réew mi demal Karim Meïssa Wade nga naan exilam jeex na direct news naan kon may ma maa ngi ñëw ci yaw kon xaafit def nag discours naan ñu nag sénégalais yi nañu xaatim ak pacte gu yees critique yéen kaay naan kon yow président Macky Sall yaa moom sama wax ji Bougane Gueye Dany ci critique yéen kaay naan kon Sall sama joyanti bu njëkk moom mooy li nga wax du bilan waaye performance gouvernementale la moom jiital gëm sa bopp ci l'évidence yéen kaay naan kon Sall discours nga ba discours jeex foo fàttee nag fukk ak ñeenti junniy milliards yi nga xam ne Sénégal njaay yore laate na ko niki bor ci yoor yoor mu koy xamal ne rax ci dolli nag taux de chômage bu réewum Sénégal boo jël ñaar fukk ak ñett nga yóbbu ko fa yow sàll bugaan naan kon yaa ngi naan di nga taxawal fondation bu yees waaye marché bi ma lay njëkk jébbal buñ ma falee njiitum réew moom moo di nag marché bi jubóole ndax sall fi mu ne soxla nga ko la jubóoleeg sénégalais yi gaa yaa ngi la mere mere goo xam ni maar day taal turbine yéen a kaay naan leen déet fi mu ne kay moom bugaan géey dani day joyanti président ki Sall ma ngay defuk bilan fàtte ni ñun senegal ci boppam ñoo ko jébbal juróom fukki milliards ne ko defaral réew mi moom sàll bàyyee ñu réew mi ak fukk ak ñeent junniy yoo xam ne bor la bañ koy réew mi téeméer boo jël fukk ñaar ci xale ñoo amut xëy ci réew mi mu bàyyee ñoog réew moo xam ne téeméer boo jël ñaar fukk ñett ci xale yi amuñu xëy nga boo bàyyee fondation ngay taxawal bugaan naan kon marché bu njëkk maa la koy jox de nga jubóog sénégal yi waaye tam jubóole sénégalais yi ndax réew mu tasaaroo askan wi di xiiroo ki ŋaayoo amatuñu jàmm ci seen biir nga taxaw nag yow sàll di ñu wax ci ay élection présidentielle te joxoonu génn ak firnde ne élection présidentielle yi dina am ci xel mu dal ndax am ci xel mu dal mooy am goo xam ne ñëppay bokk bis le jour naan man Karim Meïssa wadd booba day ma nga lancé ab campagne am direct news naan kon en tout cas bi lëndëm na Karim ba nii waxagul kañ laay ñëw waxul ci ñaari nationalité mi nga xam ni moom la amee te koy aaye ngir bokk élection ci réew mi Karim waxul ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yi nga xam ne yoreel na ko état bu Sénégal yéen kaay bi naan ci laaj yi nga xam ne sénégalais yi moom lañ koy laaj bokk na ci nag lan moo tax Karim Meïssa Wade mii waxut olof mbaa du daa déggut olof ci koo xam ne war na jiite réew mi direct news naan kon moom Karim Meïssa Wade ndax mën naa waat ne yorelul dërëm état bu Sénégal loo xam ne nag ma ni la ngir conseil constitutionnel validé candidature am gi faaw nag mu waat xamle ko Le ko Le Quotidien nan man en tout cas Ousmane Sonko moom candidat la Walf Quotidien nan man investir nan Ousmane Sonko par force ñaar fu ak juróom-ñeent ci ay parti daal di investir Ousmane Sonko Tribune yéen kaay naan kon ña ngay wéy di investir Amadou Ba mouvement national ñëpp daal di wooteel ndaje ngir mobiliser candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi Khadim ni mooy mouvement naan leen bu leen Amadou Ba rëccee Sénégal daa ngeen ko rëcc wala ndax yërëm na mag te farlu na ci ndaw te bu ngeen ko amee xam ne yaakaar mën na juddu daar daar ci réewum Sénégal moom Amadou Ba ni yéet loxol xaadim naan ko sama xol sedd na ci yaw ndax bile mobilisation mosu fee am turbine yéene kaay naan kon en tout li Modou Lo di dajal Pikine day mosu fee am gannaaw ëmma seen Modou daan Ama Baldé ni yéet booy ñang ci suuf turbine sport naan man dëgg-dëgg mooy buuru Pikine bi samp sama bopp soo yéenekaay bi naan man diggante tafaatin ak rëg-rëg ña ngay signalé wu ngir bëgg songu Modou Lo yéenekaay bi des média bi naan man sargalati nañu moom bu sa se ci bébé de l'année bu Sen TV bii lañ ko defee Amadou Diagne jiital fashe kaama noon pare ba daal di ne lépp jébbalaat na ko moom i géy dani liir ba juddu dib jigéen Amadou Diagne jébbal ko ñetti million ak lépp loo xam ne aajo woon na ca tudd wa waaye tam lépp loo xam ne xale bi mënees na ko jëfandikoo te ni gees ne waajur yi bu leen fàtte moomi buso yéenekaay bi des média bi naan man njeextalu at bi daal di métti ci diggante Kër Massar yëmba yëmbal waaye tam Kédougou laas naan kon ca yëmbal fumigène moo fa faat ab xale bu jigéen ca Pikine genn waay gu dëkkoon ak coroom daal di koy xoj ba mu faatu libération yéene kaay naan kon ca États-Unis genn xale bu góor bu tudd Njiin Ñaang dañu koo faat ci anam woo xam ni miti na Nicaragua waala jaaree door a yegg si états ab waay dawal wotoom ba yegg si si ñoom wàccee witre ba daal di koy dóoru bal accéléré daal di dem ba tey kenn xamul kan la ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm euh,